koy njëkkee mooy déjà démb gis nañu ne on a rejeté lii di demande liberté provisoire bu Bassirou Diomaye Faye un candidat c'est la première fois au Sénégal ñuy enregistré benn candidat boo xam te ni mu ngi am prison donc ñun li ñuy dégg ñun ñi nga xam te ni ay profane lañ ñi xamul dara ci droit mooy jàpp nañu ne candidat yépp ñoo war a tolloo ci wàllu anam gu ñu leen di traité ñépp génn di dox seeni soxla moom nekkul ci biir ci biti ngir doxi soxlaam comme ni ko ñeneen ñi di defee ndax am loolu lu droit mën a nangu la am déet. waaw merci Djiby par rapport à cette question introductive je crois que comme ni nga ko caractérisé de manière très pertinente d'ailleurs mooy li nga xam ne ni moo constant mooy le Sénégal s'achemine vers une élection présidentielle. Mm-hmm. et li nga xam ne constaté nañ ko mooy le conseil constitutionnel souverainement mm-hmm. après que. mu recevoir la ñi nga xamante ne tey jii yëpp ñoom ñoo bëgg a candidater. parce que mm-hmm. le droit de candidater à une élection présidentielle c'est un droit consacré par la constitution. xamante ne tey jii loolu constaté nañ donc de manière souveraine le conseil constitutionnel a apprécié conformément mm-hmm. au code électoral et conformément aux dispositions de ñi nga xamante ne tey jii nii kat nekk nañ ci yoon wu ñu war a mën a accepter seen candidature. Mm-hmm. et au bout du compte le conseil constitutionnel a cru devoir retenir. vingt candidats pour que ñoom ñu war a mën a dem. ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle qui se profile à l'horizon dans quelques jours. Mhm. bi nga xamante ne loolu am na li nga xamante ne ne constaté nan que exceptionnellement. mooy parmi les candidats qui ont été déjà retenus il y a un candidat qui est en train de subir une détention provisoire mmh. et les termes ont leur sens en droit mmh. parce que les gens ils pensent qu'à partir du moment tu es en prison tu es condamné au il y a une réelle différence entre être en prison et être condamné au pénal d'accord Bassirou Diomaye Faye au moment où je vous parle il est en prison mais il n'est pas condamné au pénal il est juste en train de subir une détention mooy sa dossier kat yow ñu ngi lay topp tu en instruction. ñu jébbal dossier bi benn juge d'instruction pour que mu saytu parce que le juge d'instruction en matière de procédure pénale il instruit à charge et à décharge. il y a certains même qui disent ou à décharge c'est pas ou à décharge le juge d'instruction il instruit à charge et à décharge. mooy Bassirou Diomaye Faye mi kat ñu ngi njort ne. am na ay tuuma yu bari yoo xamante ne ni teg nañ ko ci ndoddam donc juge d'instruction bi moom mooy instruire à charge a à décharge. d'accord et dans la situation factuelle Bassirou Diomaye Faye il est en de subir une détention provisoire pour des infractions de nature criminelle. Mmh. et bi nga xamante ne tey jii constaté nañ ne le conseil constitutionnel boole na que ci ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo war a candidater. Mmh. parce que le seul fait que Bassirou Diomaye Faye est entré. est en train de, subir une détention provisoire mënul nekk un obstacle juridique par rapport à sa candidature pour la bonne et simple que euh, il n'a pas encore une condamnation pénale définitive aucune condamnation pénale définitive n'est prononcée à son encontre et à partir du moment où aucune condamnation pénale définitive n'est prononcée à son encontre il est présumé innocent jusqu'à ce que tey jii nii kat ñu dem devant la juridiction de jugement te rendu la décision devant la juridiction de jugement moom il a la possibilité d'explorer toutes les voies de yi nga xam ne nekk na à sa disposition mooy def appel bu ñu demee appel bu ñu demee cour suprême donc tant les voies de recours ne sont pas épuisées on pas fondamentalement parler d'une condamnation qui définitive. donc mm. Bassirou Diomaye Faye au moment où je vous parle même bu fekkente ne il est en train de subir une détention provisoire moom ak man ak yow ñoo yem. donc mm. li ñu teg à son encontre et faudrait-il encore que toutes les voies de, voies de recours soient épuisées. Mhm. Maintenant, par rapport aussi à votre question, j'ai entendu dire hier que ces avocats ont introduit une demande de liberté, liberté provisoire. provisoire. Parce que la demande de liberté provisoire, c'est une c'est juste une mesure d'élargissement. xam nga avocats yi bu ñuy def def demande de liberté provisoire li nga xam ne tey jii nii ci la ñuy sukkandiku wala boog juge buy décerner nit ki liberté provisoire élément yi ko war a mën a convaincre à 100 pour cent mooy ki nga xam ne moom la ñuy demande de liberté provisoire il est régulièrement inscrit au euh, il est régulièrement domicilié au Sénégal ça c'est un aspect Bassirou Diomaye Faye il est régulièrement domicilié au Sénégal l'autre aspect mooy Bassirou Diomaye Faye est-ce que par exemple le fait que nga may ko liberté provisoire mën na mën mën na ko permettre tey ji mu def ce qu'on appelle une subordination de témoin en la matière mën noon a jàpp ne infraction yi ñu toppee Bassirou Diomaye Faye loolu mënuñu ko ci envisager parce qu'il est mënuñu ko ci envisager puisque Bassirou Diomaye Faye est poursuivi pour des infractions yoo xam ne il appartient à ceux qui l'ont accusé en matière pénale de rapporter la preuve que chef de de d'incrimination yi nga xam ne ngàlla nañ ko ci ndoddam que am na parce que en matière pénale la charge de la preuve incombe à l'accusation loolu beneen affaire la beneen mais Bassirou Diomaye Faye la garantie d'une bonne représentation en justice tey Bassirou Diomaye Faye boo ko bàyyee mënul daw pour deux raisons il est un haut fonctionnaire de la République il travaille au Sénégal. Mm-hmm. d'autant plus que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature. Mmh. il doit aller battre campagne. pour mu nekk président de la république. Mm-hmm. donc de ce point de vue là garantie yi nga xam ne yëpp tey jii nii juge d'instruction war na cee mën a sukkandiku pour accorder nit liberté provisoire yaakaar naa ne Bassirou Diomaye Faye il a toutes ces garanties là. bénéficié wu na ci yam. il est régulièrement domicilié au Sénégal. Mm-hmm. à chaque fois que la justice sénégalaise a besoin de lui. mën na dem tribunal mm-hmm. a daw génn dans, le, dans, dans l'administration sénégalaise. Mm. et au-delà de, de, cet aspect-là le conseil constitutionnel a validé sa candidature donc li nga xam ne tey jii nii kat tey jii moom moom la xaar ci moom mooy mu génn battre campagne. maintenant kon na condition yëpp. il a rempli pour bénéficier d'une liberté provisoire et toutes les garanties pour pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire. Mm. maintenant quelles sont les motivations du juge pour que tey jii moom mu bañal lool noonu Bassirou Diomaye Faye on sait mais en tout cas ba Diomaye Faye il a tout pour pouvoir bénéficier de cette mesure d'élargissement bi nga xam ne ni moom mooy liberté provisoire wala même bu fekkente ne ñoom mënuñu ko décerner liberté provisoire mais ñu jox ko ne serait-ce qu'un contrôle judiciaire loolu aussi c'est une autre alternative. contrôle judiciaire maanaam. pour ñuy seetaan contrôle judiciaire mooy tey ji ñu bàyyi ko bàyyi mu déggandiku à chaque fois que la justice a besoin de lui chaque quinze jours mu ñëw. signé wala à chaque fois que le juge d'instruction a besoin de mu ñëw présenter wu signé ñu retenir passeport am d'accord pour pour éventuellement. mu bañ a génn réew mi mu bañ génn réew mi wala dara. et je crois que que ça soit dans le cadre d'une liberté provisoire que ça soit dans le cadre de de d'un contrôle judiciaire yi ma la fi waxee lépp c'est des mesures d'élargissement yoo xam ne Bassirou Diomaye Faye il a toutes les kon moom boo amee garantie yooyu war a mën a bénéficier wu ci dara joxuñu ko ko. kon foofu juridiquement parlant ndaxam moom ay droit am kon dañ ko bafoué. waaw xam nga xam nga nag. Euh, Euh, les avocats après avoir introduit une demande de liberté provisoire nga le juge moom euh, souverainement moom mooy xool selon son intime conviction boo xam day accorder liberté provisoire bi ou pas. Hmm. bu fekkente ne argument yi nga indi doy na ko mën na accorder la liberté provisoire bu fekkee argument yi nga indi doyu ko mën na bañ a accorder la liberté provisoire sans violer les dispositions légales. Hmm. mais nag euh, monsieur Sarr. Hmm. je crois que droit dafa am. j'ai l'habitude de dire moi en tant que juriste que droit dafa am humanisme am. élégance am. et quand je dis droit dafa am humanisme am élégance dafa am mooy parfois le juge il a la possibilité non pas de violer la règle de droit mais il a la possibilité de contourner la règle de droit pour juste satisfaire une préoccupation d'intérêt général je ne dis pas que par exemple que euh, Bassirou Diomaye Faye obligatoirement a obligatoirement dafa war a am liberté provisoire entre guillemets parce que il est candidat à l'élection présidentielle et en vertu war nañ ko mën a bàyyi allègrement mu dem battre campagne au même titre Comme que les autres candidats voilà mais tey jii nii le juge par élégance au moins waroon na mën a xam ne kat ah à partir du moment où le il a toutes les garanties man li ma soxla ci koo xamante ne tey jii mën na ma ko bàyyi bàyyim ko yépp mu ngi ci Bassirou Diomaye Faye Sénégal la dëkk c'est un c'est un fonctionnaire de la République en plus le Conseil constitutionnel a validé sa candidature donc ne serait-ce que lui euh, pouvait véritablement lui accorder cette mesure d'élargissement ne serait-ce que pour lui permettre d'aller battre campagne. mais mais ndax nekkul bon nañ ma baal ci yéen surtout yéen ñi nga xam te ne yéen ay juriste du imperfection bu nekk ci ay code le fait que lu ñu prévoir on la ou pas mooy candidat bu nekk en prison. c'est-à-dire y a aucune disposition y a aucune disposition buy wax ne.

Bassirou Diomaye Faye au départ il fut poursuivi pour une infraction correctionnelle mooy diffusion de fausses nouvelles à la suite d'un post bu mu defoon sur Facebook à un moment donné on a constaté que le procureur de la République a tenu un réquisitoire supplétif mu saisir le juge d'instruction nekk kat dama bëgg nga boole dossier Sonko ak dossier Bassirou Diomaye Faye loolu ñu tuddee en droit en procédure pénale la jonction ci leen joindre Euh, dans dans en dans le euh, en euh, dans le code de procédure pénale ou bien en procédure pénale au Sénégal on a l'habitude de dire que la liberté c'est le principe l'exception de la détention mmh. autrement dit la procédure pénale day militer toujours en faveur de celui bi nga xam ne dafa nekk en nekk en détention hmm. day militer toujours en sa faveur parce que boo xoolee le droit pénal et la procédure pénale ñun juristes yi dañuy wax ne le code pénal c'est pour les délinquants parce que code pénal moo naan tey boo sàccee lii la lay tëj boo rayee nit lii la lay tëj boo defee escroquerie lii la lay tëj mais code procédure pénale moo naan quel soit tey ji nit ko lu mu def quel soit l' infraction pour laquelle vous êtes poursuivi dafa am benn yoon boo xam ne fanaan la war a jaarale te danoo war a respecter say àq ak say yéleef c'est loolu loolu nga dégg ñu tuddee que les droits de la défense et les droits de la défense c'est un c'est un principe fa fekk ay le principe de l'égalité des armes l'équité dans le traitement des affaires des affaires pénales donc de ce point de vue là je crois que ne serait-ce que sur le principe selon lequel donc euh, en procédure pénale la liberté c'est le principe l'exception c'est la détention juge bi waroon na mën a sukkandiku en plus que le conseil constitutionnel a validé la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne serait-ce que sur les éléments factuels qui militent en faveur de Bassirou Diomaye Faye waroon na mën a bénéficier ne serait-ce que mesure d'élargissement pouvant lui permettre au même titre que les candidats d'aller battre campagne correctement correctement en attendant ñu ñu ñëw ci ay campagne ak yeneen i seen